jëfan nañu leen bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bi di réew mi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy door rek nouvelle bu neex bi nga xamante ne rek Walfadjri daal dina koy annoncé ne ne nag dina dooraat programme am ginnaaw ay fan rek yi ñu génn lakk gu métti rek moom moo fa daal di amoon ba ravage seen plateau bu groupe presse bi ñu wal dëppee Walfadjri annonce bu nu mel nag ñu ngi ko def rekk ni ki tey ci talaata ji yamoo ko juróom-ñaari fan ci weeru mai ci mu nekk nouvelle boo xamante ne rek ñii di téléspectateurs yi nag yàkkamti woon nañ ko ginnaaw bu métti bi nga xamante ne rek amoon na fa fan yii ñu génn ci lëkkoo bu groupe presse bi nga xamante rek Sidi Lamine Niass moo ko moomoon mu nekk lakk boo xamante ne rek daal dinay lakk lépp luy studio principal ci ci demi milliard de francs CFA mu nekk ay dégâts matériels yoo xamante ne rek euh, patron bi nag moom moo ko daal di xam ne di Cheikh Niass ginnaaw perte yi nga xamante ne rek daal dinañ koy perte mu nekk nag mbir moo xamante ne rek mbir mu jafe la woon wala sax mbir mu tiis la woon ci média ouest africaine boobu ci la groupe de presse bi nag daal di di annoncé waat ne na nag lii di programme yi dinañu ko door nit ki alxames yem juróom-ñeenti fan weeru mai ci atum 2024 ma ngay jaajëfal nag bu baax te spectateur am di wax ne nag lii di programme am dina ko door nit ki alxames mu nekk plateau spécial boo xamante rek dina leen ko proposé bu 20 heures jotee Walf TV yëpp mu ngay jaax ci boobule occasion di jaajëfal képp koo xamante ne rek daal di nga koy jàppale jaarale ko nag ci Express ngir télé bari rek doon ko def ngir jàppale nag presse bi nga xamante ne rek Sidi Lamine Niass moom moo fi daal di woon samp jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné parce que cloche de notification yi ngir mën a am